après décès après décès Tanor Tanor bii ni ñu ko war a non il faudrait que ñu préciser tuuti aussi que ne la situation bi amoon ci àdduna mhm. n'était n'avait pas facilité également le travail à toutes les formations politiques parce que après élection Macky Sall Covid bi moo dugg mhm. les gens ne pouvaient pas se rencontrer se réunir nangam ak yeneen ak sangam yu bari mais pour autant le parti socialiste a continué à fonctionner ay ak ay visioconférence ay léegi bi affaire yi barrières yi bi lever barrière gis nga ñu continuer pas plus tard que matut un mois moi qui vous parle j'ai organisé un très grand meeting à Dara Djolof chez moi sous la bannière de notre parti où le ministre Alioune Ndoye accompagné de Abdoulaye Wilane et autres ont été venus représenter la secrétaire générale de notre parti et le bureau politique de notre parti chez moi comme des jeunes comme les Dibkor Faye l'ont fait Ali Mané ailleurs entre autres ça veut il, il ne faudrait moi pour moi c'est pas valorisant que les gens pensent que ne dans un parti comme le Parti socialiste avec sa brochette de de responsabilité et de sommité yi fa nekk nga ne diw kii war na mun a nekk Parti socialiste suñ doon wut ay candidats mun nañ ci am lu bare bare c'est que nag aussi il faudrait que nit ñi mhm. am aussi le sens de la responsabilité am ay valeurs parce que munoo bokk ci mbir nekk ak ay nit wax ni ci lii la ñu nekk ñu continuer ba nga xam ne da on dans des moments de doute ngay bugg a daw ak di di di c'est pas c'est du yëfi gor du yëfi ay valeurs yi nga xam ne le parti socialiste aussi mhm. c'est pas des politiciens nous sommes un parti politique je dis bien avec des avec ce manque de confiance pas une manque de confiance en quoi il y cette manque de confiance moi qui vous parle mais je suis dans ce parti ya y a d'autres jeunes qui sont là qui se battent à la base chez eux qui entretiennent la flamme des partis maintenant on ne peut pas être comme vous dites da ngay nekk ci nguur walla nga nekk ci opposition quand dans dans dans dans dans dans un gouvernement dafa am ay conduite yooyu tenir te loolu ñun bañ ci nekkee ñoo ko doon exiger tey mënuñu nekk nager à contre-courant des valeurs et des principes que nous défendions mais leneen li nga xam ne mooy li mu jëm ci ay retrouvailles loolu le parti l'a toujours dit depuis Tanor et ça fait, fait partie des volontés de Tanor. qu'on se retrouve et qu'on aille même au-delà du parti socialiste même il faudrait que la grande famille socialiste avec les gens de l'AFP de l'URD entre autres qui étaient des membres éminents du parti socialiste qu'on se retrouve loolu lu lu lu am solo la mais nag ces retrouvailles doivent être organisées mm-hmm. parce que le parti socialiste est un parti organisé qui uh-huh. a en Aminata Mbengue Ndiaye qui la secretaire générale alors que le problème bi nga wax mu jëm ci ay ñoom Khalifa ak ay ñoom Barthélémy mais loolu ñëpp gis nañu coow la nu mu demee woon on avait un différent politique différent politique boobu c'était lié à une conduite et à une ligne bi nga xam ne moom la suñu parti ñoom ñu bëgg ne du ngeen ko defee nii ñu ne la ñun nii lañ koy defee ba ci waroo ci am ci ñoom ñu dem ci et tey aussi qu'on le veuille ou pas mais Khalifa la mu bañoon ci ñun te taxoon ñu jugee ko mooy dañ ne ko woon ñun ci coalition Benno la ñu bokk. yow maire de Dakar nga. c'est une responsabilité boo am. da ngaa war di toog di waxtaan ak le président de la République parce que ñun c'est pas une question de personne c'est des principes et des valeurs que nous défendons loolu la bañoon mais tey dem na seeti bi mu demee dem seeti Macky Sall waxtaan ak moom gis na lu ko jural et man j'ai été témoin d'une réunion où Tanor y était Khalifa y était Barthélémy y était et Tanor avait dit clairement à xalifa danga ngaa war a dem di waxtaan ak Macky parce que loolu mooy wax surtout que mais le diisoo bi nga xam ne tey mooy philosophie bu sunt entendre assise yi mais Senghor moo ko def diisoo ak baykat yi diisoo ak sàmmkat yi diisoo ak nappkat yi diisoo ak sénégalais yi le Sénégal est une société de diisoo mhm. de waxtaan et de ngor ak sutura Barthélémy mi tey je je le salue et di ko rendre hommage parce qu'il a joué un grand dans ce dialogue national-là. Ouais. Mais c'est une restitution d'une leçon qu'il a apprise au Parti socialiste auprès de Tanor. Loolu la théorisé tey. Et c'est ce qui a donné ce que ce que cela a donné. Donc nous ne sommes pas en résumé, nous ne sommes pas nous sommes ouverts et nous sommes favorables à ces retrouvailles. Et loolu dernièrement suñu dernière réunion secrétariat exécutif rek la présidente Aminata Mbengue Ndiaye réa réaffirmé na ko. mais wax mais nag alors mais mais xam nga loolu nag am na ñu ci am ñu ci dox am na ñu ciy wax te parti socialiste aussi boobu nekkul lu ñuy wax ci place publique lañ koy lijjante euh,